chers internautes ñoo ngi leen di ziar a baax a baax ci mag gi ñoo ngi nii ci biir résidence Khadim Rasoul feegoog ak ka nga xam ne fii jëwriñ la ci wàllu sécurité ñu ngi koy bàyyi rek jëwriñ nga présenté wu suñu suñu internet yi. waaw man maa ngi tudd Modou Diop Diawbe euh, nekk euh, sécurité prévention commité de veille et d'alerte de Khoudamoul Khadim ci ndigalul Serigne Amsa mu Serigne Abdoulahat ak sëriñ Basirou Thioro ak sëñ Abdourahim Fall moom sëñ Modou Aminta waaye ñun ñëpp nag ñu ngi ci gannaaw sëñ Sidi moom sëñ Amsa moom sëñ Abdou Lahat mooy sunu kilifa euh, beneen bi nag mooy bi nga xam ne moom euh, mooy comité d'organisation bi muy loo xam ni ci ndigalul sëñ Ousmane Mbacké Gaynde Fatma mi yor liggéey bi te sëriñ bi dénk ko waaye jaar ko ci sëñ Jiili Lo nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu sécurité ci commité d'organisation Magal Touba mu def ma at suyem ci wetam muy ñu yor commission relation avec l'administration et de force de sécurité et de défence moom mooy kilifa gi mooy sun mooy président bi man at suyem laa bu may jox ay ndigal di ma yónni ci turu comité d'organisation du Grand màggal de Touba kon sëñ Modou Diop euh, am nga ay ndomb ak tànk ci biir comité d'organisation bi soo ñu ko mënee gën a leeral rek sa sécurité ci wàllu euh, comité d'organisation bi sa taxawaay lan ci. waaw taxawaay bi mooy ndigal li ñu sëñ jiili sant sëñ sëñ sëñ jiili loo sant ñu ko te comité bee sant mooy gannaaw bi ñu àndee ak force de sécurité de défense muy police ak gendarmerie ngir ngir yëpp jafe-jafe yu ñu am ñu taxawu ci ci wàllu dal yi. ci wàllu di leen gindi ak di leen won secteurs yi ak di leen leeral ci li nga xam ne mooy laissez-passer comité d'organisation du Grand Magal de Touba ak ordre de yi nga xam ne préfet moo koy signé ak kilifa yi nga xam ne sax duñ am ay mission tey dugg si ci dëkk bu sell bi di Touba. rawatina niñ ko séddalee ci ay secteur comme secteur yu bari daanaa ko def waaye bi ci gën a am solo rek laa la wax muy secteur en ak secteur 2. te secteur yëpp foo mën a jaar da ngay dugg ci secteur de secteur mooy jumaa yi Touba ji nga xam ne ku ñëw da nga fa dem te loolu waa daayira Muxaddamatul ma di ci def liggéey bu am solo euh, ñu di ci lëkkaloo ak Matar Kan waaye secteur de mooy li nga xam ne mooy di set bunt yi nga xam ne 17 bunt yoo xam ne yëpp bunt la ñuy war a jaare ñëw ci jumaay Touba bunt yooyu ki nga xam ne mooy euh, commissaire Diegane Sène jaar ko encore ci ki nga xam ne mooy directeur u mi ba ci ki nga xam ne mooy euh, commissaire euh, Ndiaga Diop commissaire Cheikhou Diop ak lieutenant yi mu àndal ak commissaire yi àndal yëpp ñëw fi ak agents yi dañ ko séddale ay différents secteurs waaye bunt bu ne dañ faa dañ ma faa yóbbu ngir ña fay monter di ay policier ka nga xam ne moo ci gën a garaade ñu xamal ko ni ko kii bu ñëwee ci yow na nga xam ne ci ndigalul comité bi la fi ñëwee ba tax na yombal na liggéey bi ni mu ko yombalee mooy. képp ku ñu téye fekk na chef de secteur ba ne foofu am na sama numéro am naa numéro am dañuy jokkoo rek ñu bàyyi ko loolu yombal na liggéey bi parce que ren dafa am euh, contexte bu bu màggal gi tool tombeel te contexte boobu boo maîtriser wul dëkk bi du mën a dox lu bari mooy dafa tombe ak nawet ba tax na fépp mbedd bu ndox daan am tamit mbedd bu ndox mën a mën a am yàlla day dogal euh, dara dafa fa mën a jaar oto yëpp ci kaw tali bi la ñuy nekk. moo tax circulation bi bouché bouché goo xam ne métti métti waay boo xam ni loolu moo ko waral mooy ñenn ñi dañuy nekk fenn quatre heures de temps wala cinq de temps loolu moo ko waral ndax bu fekkonte ne du nawet ni ñi danañ mën a jaar ci yeneen oto yi a jaar ci moo tax yenn yi dugg ci ndox mi yenn yi fay ci ndox mi yenn yi am problème ci kii loolu moo waral circulation bi xat mais ñi nga xam ne ñooy police ñi ngi def liggéey bu am solo muy compagnie circulation ñi nga xam ne ñoo tàmbalee rond point total ba ni ñu ànd rond Euh, euh, poste post contrôle noonu tam la GIE mi def ko li ci gën a garaaw mooy ren police dafa yokk effectif ndax yëpp man maa ko daan ànd ak ñoom fu nekk dañ dañ dañ daan teg fu ne ñaari élément ren fu ñu daan teg ñaar juróom lañ fa teg fu ñu daan teg juróom ñu teg fu fukk. Euh, daanaka ku daaw mu xadim tamit am nga fa taxawaay bu am solo ci wàllu sécurité. léegi damay lan lan mooy liggéeyu ku daaw mu xadim. ci jërëjëf damay la maam bi police defee loolu tam gendarmerie daa def loolu. gendarmerie moom it fépp fu mu daan def benn wala ñaar dafaa def lu raw loolu ci njiitul euh, ki nga xam ne mooy général euh, Moussa Fall mais ki ko fi nekkal muy lieutenant colonel Alioune Diop ak commandant bi bi ak ñi fi nekk ñi ngi lëkkaloo lëkkaloo bu rafet ak yeneen chef de service yi fi nekk bon mooy loolu ci turu xudaam ci turu comité d'organisation bi moo tax it résidence Khadim Rassoul laa baase man parce que màggal gi bu desee une semaine wala quinze jours man résidence laay baase bu defee kenn ku am jafe ci comité ci ci ci ñiy ma ci ñiy ñëw am na ñoo xam téye woon nañ leen ba ci ay délégation yoo xam téye woon nañ leen xamuñu leen mais buñ ma wooyee damay dem ñu bàyyi leen loolu tam police mi def liggéey bu am solo ak gendarmerie kon noonu la demee waaw Xuddaamul Xadim nga dëkkoon ci taxawaayu Xuddaamul Xadim ñu bëri dañuy dégg Xuddaamul Xadim lan mooy liggéeyu Xuddaamul Xadim kuréel la goo xam ne sëñ Abdou Lahat moo ko fi tegoon muy defendre képp ku wax ci sëñ bi loo war ta wax ak war may dëkk bi waaye kaaraange dëkk bi ak kaaraange waa dëkk bi ndax dafa am ñaar kaaraange dëkk bi mooy dëkk bi sëñ Touba moom ak ay nawleem ak ak ay ay doomam ak ay njabootam maa ngi jégalu ak ñi ko fi nekkal ak seex yeeg yooyu mooy kenn bañ a def lu méngoowul ak ñoom di ko jëmee ci ñoom lañ ca war a faj ci waxtaan ñu faj ko lañ ca war a waxtaan ak yow ñu waxtaan ak yow ndànk wala lañ war a def délégation ñëw ci yow ak fu mën a nekk ci réew mi ñu def délégation dem ci wax ak yow loola jeex bu dee da ngaa juum nga jégalu mu jeex kenn du ko yëg bu dee da dëgër bopp nag des na ko faj pour pour génne la dëkk bi loolu xudaam da ciy taxaw ak warma ji mooy li nga xam ne toujours mun Muntaxa da koy yeesal mooy ñu warmaal dëkk bi warmaal borom dëkk bi waaw muy Serigne Touba Khadim Rasoul ak waa dëkk bi loolu da ciy dox mais day lëkkaloo ak police ak gendarmerie ci ñi nga xam dañuy def ay ñaawteef ci dëkk bu sell bi di Touba ndax da ci am loo xam ne euh, Sénégal fépp dañ koy tere loo xam ni yoon moo koy tere mu nekk ci constitution Sénégal am loo xam ne nag sëñ Touba koy tere ci dëkkam. ci loolu noonu sëñ Touba tere loolu lañ bëgg nga dëkkam lan mooy la nga xamante ji li nga xam ne daal yéen soo ko gisee nit du ko def ci Touba da ciy taxaw la nga xam ne daal moom xalif bi bëgg ko fii nii mooy lu sëriñ bi tere rek loo xam xalif bi joxe na ci ndigal rek loolu dañ cey taxaw loolu mooy mbir yi am na ay kayit yu ñu jox xam nañ lañ ci war a tere mais xataay bi du jar ñu koy lim mais sëñ moom lépp lislaam di tere sëriñ bi daf koy tere waaye nag war ma la ca jiital war ma mooy kuñ koo xam dafa juum ñu war laa jubbanti koo xam da ngaa da ngaa da ngaa xamut ñu xamal la koo xam da ngaa féeteerlu di wane tey ñu yar la ñett yooyu moom day am yar nag mooy euh, euh, jébbal la ñi nga xam ne ñooy niti yoon waaw niti yoon wax leen lañ ci bëgg yoon def ca lam ci war def mooy bu dee police ñoom officier police judiciaire lañ ñooy def lu mel ne ay enquête def lu mel ne ay PV bu ko defee jébbal ki nga xam ne mooy procureur procureur tam jébbal ki nga xam ne dégg nga la ko mooy président tribunal yàlla dogal na euh, procureur bu bi fi nekk Mbàkke ak président tribunal bi nekk Mbàkke seen kéemtulaay kàttan ci war may dëkk bi ñu ngi koy dox ak procureur bu Diourbel ak président tribunal bu Diourbel loolu bu ko waxee dañuy remercier bu ko defee ministère de la justice mi nga xam ne moom moo leen commandé ak ñëpp. loolu yéen yan jafe-jafe ngeen di am ci liggéey non ñun Xudamul Xadim moom amuñu benn jafe-jafe pour le moment parce que nit ñi comprendre nañ waaw da di nag nit kuy def lu ñuy tere bu dee ci wàll gi nga xam ne guñ war a kii la amul problème mais bu dee ku def la nga dëli la wala dégg nga la comme def loo xam ne da eh, yoon daf koy tere day jéem a fexe nu mu la rëccee wala mu jéem a fexe nu mu la tuumaal waaye loolu comprendre nañ ko parce que yàgg nañ ko def ndax depuis eh, mille 2004 ba léegi ñu ngi koy def eh, ci 2005 la on le le 2005 bi nga xam ne indi nañ fi commissariat jànnatu bi ñu boole ñu ak commissaire Jaxate noonu la ñuy noonu la ñuy paasante consignes yi ba loolu lépp am noonu tam la liggéey ak waa gendarmerie. fidèles yi daanaka ñu ngi ñëw si ci Touba ban message nga leen di dénk rek ngir yóbbal leen ko ñu xam seen taxawaay ak ñu ngi doxalee daal pour yombal leen liggéey bi. waa xam nga message bi mooy fii moom. du murid doo nga fii ñëw fii Tidiane yeeg Xaadir yeeg Laayeen yeeg chrétien yi ñëpp a fi ñëw ngir màggalu Serigne Touba kon ñëpp jullit yëpp ñëpp a fi ñëw koo xam nit nga rek da nga ñëw bon message bi mooy euh, ñu leen di ñaanal ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm waaye tam ñu xàmmee ñiy gàmm ak ñiy raas dem na ñoo xam mën nañ présenté wu ni policier la wala ñu présenté wu ni gendarme la wala ñu présenté wu ni xuddaamul xadim wala ñu présenté wu sax ni sunu mbokki Baay Faal yi lañ fekk dañuy dañuy def leneen loolu ñu xàmmee ko dégg nga ku ne fii ñëw kon ñu ñaan rek maanaam xamal leen ne sëñ Muntaxa li mu bëgg ci dëkkam bii moom mooy sëñ Tuubaa nañ ko ko bàyyil rawatina ki nga xam ne mooy xalifa général de Baay Faal mi nga xam ne mooy sëriñ Amdi Moodu Mbend nga xam ne moom lu sëñ bëgg mu defal ko ko ñun ñun ñun ñun wëllëre Cheikh Fall lañ ay Baay Fall lañ ndax liggéey sëñ Tuubaa boo koy def ba ñëpp fekk la ci da ngay xam ni bu nangoo rek Cheikh Fall da cee dugg vraiment loolu lañ leen di sensibiliser di leen ko wax bu baax a baax di leen wax ni nañ baña a ak force de sécurité de défense yi mooy bu la jaaral fii nga jaar fii bu la nee jaaral fee nga jaar fee te bañ a yàkkamti wala nga toog topp sa xol ndax sëñ Tuubaa mi ñuy màggal si kat nañu xam ni kenn dajul li mu dajoon kon loo daj ci yoon ci métit wala loo daj ci yoon wi ci tàngoor wala nga daj ko ci déngale ko lu mu doon nga muñee ko sëriñ bi baag si ci sëriñ bi dellu ci jàmm ndax ku ne xam ne ni màkkatal mu karam yonte bi alayhi salaatu salaam moo fa nekk di jëwriñ sëriñ Touba sëriñ Touba euh, def lépp ba maanaam euh, muritu ko ba yonte bi fayee ko li mu ko fayee te bala nga fa dem daanaka danga joxe 4 millions doog faa dem te boo demee tam dañ naan la nii ngay def ni ngay def te nañ ko respecté ko kon tamit borom kër ci këram muy Cheikh Mamadou Mountakha nañ ko nañ nañ respecté li nga xam ne moom la ko def te ñun ñiy dégle tam ñu fexe ba nit ki la ngay digle nga jiitu ca kon sëñ bi kon. waaw ma tàggatoo waaw mais la ngay diglee nga jiitu ca nit mënoo nekk def lu ñuy tere wala ngay def lu ñuy xebet ba pare bëgg a tere nit loolu mënta nekk ma koy digal sunu ñun ñi bokk ci xudaamul xadim di wax ni ñun xudaamul xadim nag sëñ am sa mooy sunu jëwrin waaye dañuy lëkkaloog ñëpp liggéey ndax noonu lañuy liggéey waa service di leen gërëm bu baax a baax seen taxawaay yéen waa Sénégal ndax gis nañ ni liggéey bi ngeen def liggéey bu rafet la te ngeen ko ci yar ak tegin di ñaan ñu màggal ci jàmm euh, dellu ci jàmm te euh, sëñ tubaa fay ñëpp fay képp koo xam ni bëgg nga te ñëwoo sax yàlla boole ci tuyaaba ji. amiin ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala. jërëjëf jërëjëf.